wax ñaar laa bëgg a wax rek mooy moom dama dégg waayu PDS bi mu nii ma responsable cadre PDS mu ni dañ leen na marginalisé deux mille dix neuf ci kaw euh, Ousmane Sonko mais deux mille dix neuf Ousmane Sonko la nga wax waxal li nga wax waxal non si ci lan tudduma fi ba léegi Ousmane yaa ne dañ leen dañ leen na waxuma Ousmane ah. Sonko de waxuma Ousmane Sonko de Karim Wade je parle de Karim Wade dama jóg ok damay Ousmane Sonko Karim Wade deux mille dix neuf amoon na amoon na double nationalité mission dañ moom mu ni c'est injuste deux mille dix neuf na la injuste deux mille dix beneen bi man li ma métti ajustement may mun a kuy Sénégal di jullit war na laa métti mais amul ba daam ay njaboot daa am doom am ay mbokk am ay xarit di gor nan la ko parti politique mën a taxaw def ko yaay sunu candidat ñu ne ci domaine politique ku ne xam ne ne politique assemblée lañ koy mu engagé wu engagé mu engagé benn parti taxaw na ko da ngaa corrompre ay juge xool na lu grave mais bu ko bu ko groupe parlementaire euh, APR jàppale wu may ko doole kenn ma ko war a may doole. groupe parlementaire am ak ay noonu Amadou Ba pour toroxal Amadou Ba ngeen loolu c'est naturel man loolu ma irrité ay député yi nga xam ni même ñu yoroon dossier Amadou Ba di koy conseil constitutionnel dañoo voté affaire bi ay député APR. di voté te nit koo xam ni ñëwul sax ni Amadou da ngaa korom da mën naa am am na loolu dañoo njëkk a jiiñ Amadou Ba du corruption delluwaat ginnaaw loolu la njëkk a jiiñ mais bu ñu attaqué Amadou muy candidat bi sunu candidat kan moo ko war a défendre ku mouvement bi mu nekk député yi mu nekk ñoo ko défendre mais député yi ànd ak waa PDS dañuy lux mboon ndax Amadou daa corrompu wala corrompu xam ngeen lan la nañu arrêté. réew mi li fi xam bari na li bokk bari na président Macky Sall góor la jiite réew mi am Amadou Ba góor la di président ci dëkk bi dañu respecté mais taxaw naan Amadou Ba dafa corrompre ay ay juste et puis bi nga xam ne ci la bokk ay député ci waxam ci la bokk man heure bu député PS demee jusqu'au bout ci processus bi te waa PS waxuñu ci ma démissionné du parti socialiste man parce que surtout bu doon keneen du ma ko nangu. bu ñu jëloon tey ku mel ni Mansour Faye na ko def loolu député yi ànd ci ma bañ mais parti kay solidarité la ak cohésion mais parti bi nga wax bu la bëggee toroxal ku lay jàppale loolu moom ma métti ci mbir mi loolu moom iri joor moom mais mais mais mais président bi génn na ki génn wax c'est le président de la République drapé de son manteau de son manteau de garant bon fonctionnement des institutions euh, est-ce que yow da nga jàpp ne euh, complot politique la boo xam ne euh, APR Benno Bokk Yaakaar yëpp ca kaw ba ci suuf ñëpp la seen loxo laale. non mënul nekk ñëpp mënul nekk ñëpp loolu nekkul vraiment am nañu ànd ak Amadou Ba ci biir APR ñu bari sax ñi ëpp sax Amadou Ba lay àndal ëpp ci APR fuuf ëpp ci Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba lay àndal mais yow kay loolu du secret ñaata nit ñoo jóg fii ne Amadou war na seen candidat dañ ko fi dañ ko changé. ñoom nëbbatuñ ci benn télé télé bi doon waxee ni ñu doon wax nëbbatuñu bien que am na ponk la ci ginnaaw waxuñu mais ñaata nit waa APR dirigeant APR ñoo génn fii si la candidat Amadou Ba nëbbuñu ko di ko wax ñëpp di ko dégg. mais li feeñ nee nañu moo li nëbbu moo ko moo ko moo ko ëpp. waaw mais c'est c'est c'est évident ça li lu yëngal liggéey du ndaw. li na ci réew mi ñëpp a ko xam wax ko ñàkk a wax fi nekk. lan moo fi nekk xaw ma ko xam nga ko biir laay yaa ma gën a xam. <laughs> li andi lii yëpp yaa ma gën a xam fuuf biir laay bu kamaraay fay nga ma koy wax. tafurlaa yaa ma gën a xam booy. tafurlaa barki Cheikhul Khadim yaa ma gën a xam. waaw mais Birima je te pose des questions dama ne damay tontu damay tontu loo xam ne dama ne. Ah. liir bi nàmp moo xew ci réew mi liir bi nàmp ci réew qu'est-ce qui s'est passé xam nga lu am solo. waaw mooy le président Macky Sall na njaboote ñëpp uuf ñëpp te ñu bàyyi lii ñuy def góor kenn du ko toroxal góor kenn du ko toroxal de te duñ leen on duñ leen bàyyi ñu on va se battre. ah bon mais oui dañ leen bàyyi ñu faagaagal. la paire. en partout, dehors partout fépp foo xeex war ko def duñu nangu ñuy faagaagal dañu bëgg a faagaagal saaga nañu tontu ñu ñuy xas tontu wuñu ñu wax am dool nekk tontu yaakaar ne Macky Sall dina ndax mooy suñu kilifa boo seetloo ñu ànd ak Amadou Ba ñoo jox cër Macky Sall et puis bu fàtte ni Amadou Ba du candidat wu Macky Sall APR rek candidat Benno Bokk Yaakaar ñu waa par dañ ko investir ñoo ko jëkk investir sax waa APR ñu bëgg ko xajamal ci réew mi man je dis que na Amadou Ba jël ses responsabilités en tout cas il a en face de lui le peuple sénégalais su jëlee responsabilité c'est ça man du ma ko jëlal su ma laaj sama xalaat ma sama xalaat su wax laa yu ma maam mais am ni sañ naa ni ànduma ci tey ànduma ci suba ànduma ci ginnaaw suba et ça fait mal et ça fait mal te nag naa wax leen man naa ay fi audio wu Macky Sall 2012 yu muy wax ni yokk mandat président de la République xel ko mënul nekk. c'est lui qui avait fait échouer le report. waaw la tentative de report et qui était par ah, Alioune Tine ak Obasanjo commencé woon nañu. waaw te te wuyu ma rek donc Macky Sall mënu ko bañ 2012. bëggoon a wàññi ma man loolu jaaxal mu tëj bëgg a wàññi sa mandat ne mënu ma koo wàññi man ko bëgg a yokk sa mandat. loolu man loolu il faut que ma dugg di xalaat du ma bàyyi ba kenn. Macky Sall gëmul mandat bu ko wàññi mandat loolu ma gëm loolu ma gëm ko mais ku mun wàññi noo mën a yokkee. mais mais mais ma juste une question euh, ñan am na ñu taxaw ku mel ni Mame Mbaye Niang taxaw na ne jàmm moo gën élection en en en d'autres termes euh, nañu reporter. élection yi man man 93 ba léegi oui man 93 ba léegi laa xam damay xam ne élection élection yi moo gën a seet élection yi fi jaar yëpp bii ñu jëm mu ëpp ay candidats yëpp. pour man moo gën a ouvert sax c' la première fois Sénégal am vingt candidats deux mille dix neuf ñaar la yemoon xaw six xaw ma cinq deux mille douze ñaar la yemoon quinze xaw ma quatorze. quinze quinze tey am vingt candidats marche amul assemblée générale amul sànni xeer amul ba ana crise bi. alors euh, dama doon wax ma ne Mame Mbaye Niang am en tout cas il a le mérite d' avancer euh, à visage découvert mais. tey APR dafa am des manœuvres yu ñu démarré depuis plus d'un mois mu am de grands responsables yu nekk ci ginnaaw di manœuvrer pour cette élection là ñu reporter ko et, et que euh, la candidature de Amadou Ba euh, soit euh, revue euh, est-ce que aujourd'hui mun nga identifier formellement ces responsables la dans l'entourage du président de la République qui ont réussi cette manœuvre. yaa ma la gën a xam. billahi yaa la xam. ndax li ma joxoon tur la jox may tur xa yaa ma gën a xam voilà ci sa bopp yaa ma gën a xam dama lay jox ay tur nga ma jox ay tur ñëpp lañ xam ci ñi tur fii xam nañ leen. wala daa daa kay ma nekk le fou du coin waxal ñëpp maa bañ dégg nga te ma faire le fou du coin waxal ñëpp maa lànk ne ñëpp teg ba sax ngand ka ku ngand ka keneen uuf xam ñëpp xam ne. jigéen la wala góor xaw ma ndax léegi am na jigéen ñu mën ko la leer ba leer moom ñu ko manœuvrer